منفعتين وبلائر بساه تلز الجلال والإكرام ما سيرى العنا ذا وصلت للمختار بسرا منا من جهتي ما ساني فامتنع لي كسب القادر والمقتدر ناري به بشارة يوصل خطي من يريد تربية ومن لربه يريد ترقية لي وصل الباقي ثوابا وجزاء وخير أجر خاد مني وجزاء لي وصل الباقي ثوابا وجزاء وخير أجر خاد مني asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk turam ak santam kàddu yi nag mu ay kàddu cant rek la di sant bu baax di sant yàlla ak yonent bi ak bu baax bu ñu boolee ci bis bii nga xam ne bisu bisu cant la sant it nag euh, ñi ma yëpp di sant waa comité bi comité euh, d'organisation bi waa njiit yi njiitu waa Mafatihul ci boole bi ñu boole ci liggéey bi di sant it nag uh, waa Kër Seex yëpp ndax ñii ngeen gis ñëpp waa Kër Seex la ñëwoon ak seen pasteef ànd ànd coog ñum depuis ngontalu maam Seex gi ba léegi. di sant suñu Baay Faal yu góor yi nekkoon ca waañ baak nekk ci organisation beeg lépp rek soo ba tey ñu bokk ñoo yendoog ñun ak jigéen ñi nga xam ne ñoo bokkoon di yendoog ñun. di di sant ñëpp daal di rafet lu taxawaay bi di ñaaxaat di ñaan suñu borom tam may ñu fekke ko ay at yu baree bari ñuy jàpp ci liggéey bi rek comme ni ma ko daan waxee rek di soññaat daal nit ñi di nàmmaat tamit xol yi pour ñuy gën a jublu sëñ bi gën di jàpp ci liggéey bi ndax loolu rek moo ñu jëmale kanam. afin euh, man nag ñëw ma rejoindre waaye xam naa ne ñoom ñoo ma ñoo ma invité ndax ñoom ñoo gëstu xam naa ba seetlu ne ñun ah, am naa yëngatu yëngatu lu ñu doon def te ñoom tamit seen euh, vision ci loolu lay dem ñu sàkku ñëw kër ga ne montel ñu cellule pour ñu mën a bokk ci liggéey bi loolu lépp nag ci kaw yaatal lañ ko ndax ndax sëñ taxa moo sant loolu comme nag ñun lépp lu sëñ bi sant rek waa ñu ngi ci biir waxuma nag ba mu ñu fekkee ñu ne ci kaw yoon wi moo tax ñoom ñu ñëwoon nag monteel ñu cellule bi motul sax semaine waaye ñun fu ñu fekk rek waa ci liggéey bi yóbbaale ñu rek moo tax biñ ñu wooyee itam ñu ñëw ñëw jëmmal bis bi ak suñu suñu suñu suñu suñu jëmm yi ñëw ñëw jëmmal bisu sëñ Touba gi. waaw man kay maa ngi ca biir maa ci biir kuréel gi maa ci màggal maa ci lépp lu ñu war ci sëñ bi rek ñu ci biir di ci bokk ànd ak nag. daayira yi ñu bokk kër seex yëpp tam maa ngi leen di invité ñun ñu bokk ci liggéey bi lépp lu ñuy woote ci ngir njaarim benn fan la ñun ñëpp war a teew jëmmal ngir ngir jëmmi njaarim di woo nag daayira ñun ñëpp ñu bokk benn ñëw jàpp ci bis hmm. doon laaj uh, maanaam lu leen yëkkati woon ba ngeen ànd ak soxna Karima ñëw di ko jàppale si bis bi daal. waa asalaamaaleykum. ñoy ñoy ñep di jaajeufal ñep di xamal na rek ñi ngi ci magal gi ci nga xamantene ni mom la ni doore ni ci kër gu mag di magal ak Serigne Touba gi nga xamantene ni def na fukki at ak juroom ci kër gu mag ñoy ni dal and ak soxna Karima Mbacke di dolel ci bis bi ah, aw ci yoona top ci ginnawam rek nak ci ci lu baax ah, ñu ngi koy jaajeufal bu baax nak mënuñu ko fay sunu xol nak tay sedd na trop vraiment suñu xol yi sedd na lool lool lool lool tey moom fu mbégte yam rek foofu lan tàmbalee ñu ngi koy jaajëfal bu baax Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gudd fan ndax xam nañ ne bu ñu yàggee jiite rek ci lu baax rek la ñuy wéy ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko gërëm bu baax di sant nag ajaratu Mbène Gueye ñu ngi koy ñaanal bu baax moom tamit moom ñu booleeg soxna si ko benn yoon ñu ngi taxawee ah, di ñaanal moom mu yàgg fi lool te wér kontaan nañ daal ñun daal ay yaay faal topp ci soxna si rek di def euh, jikko yaay faal yàlla nañu ci yàlla jàppale te dooleel ñu ci te saxal ñu ci lool lool lool bës ci suñu xol ba lépp luñ bébér rek yéene ko ci jikkoy yaay faal ji suñ borom dëggal ko defal ñu ko bu baax a baax ñooy ñaanal ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaanal nag Barka Diallo ak yow mi taxaw yàlla yàggal leen fii defal leen jàmm wéral cëri ba lépp fépp fu ngeen bëgg a àgg rek suñ borom àggal leen fi ak borom bis bi maa ngi jéggalu bu baax nag di jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf. comme ñoom ñëw gunge si soxna Karima ñu doon laajew noo gise woon bis bi ak nu mu woon xanaa ñu kontaan ci soxna ndax réccuwunu lu nu ànd moom ndax soxna Karima dafa baax ba mu déggee suñ alliance bi ci la dikk daal ne damaa bëgg nga yëkkatil ma daayira Porokhane ñu yëkkatil ko ko. te yàlla rek tax boobaa léegi nag réccu ci dara danoo gën a avancé waaye gën noo jëm ginna jëru delluwunu ginnaaw soxna Karima baax na am na yëg am na am na boot na ñëpp ñuy nuyu nag Mbenda Gueye di ko ñaanal moom itam yàlla jàppale ko jàppale bépp jullit màggal gi moom dañ koy te dañ koy ñaanal ay ati ati at ñu di ko màggal ndax njaareem moom sëñ Touba li mu def njaareem defu ko fenn fii la am fukki at ak juróom njaareem fi la léppam nekk barsaax gi ci la lépp fi la léppam nekk kon nag ñu ngi ñaan teewe ko ay déwén di déwén ak mboole mu jullit ñuy ñaanal nag suñ doom ju góor ji ndax fu mu dajeeg ñun rek sagal na nu suturaal nañu góor a jàll li nga bëgg ci sa métier mi yàlla na la ko yàlla may kon nag yàlla nañ ko teewe ay déwén di déwén ak yow yow it ku bax nga ba nga jappé soxna Karima ba tay bàyyi woo yàlla nañu fi yalla bayyi ak mbolé mu julit ñu téwé ko ay déwéni déwén ak mbolé mu jullit. jóge ci soxna Karima ci bis bi ñu doon laaj ba xam no yégué bis bi ak du bis bi doxé dal da nga wax auzu ah, billaahi mina seytaani rajiim ñu ngi nuyu ñepp di gërëm ñepp ñoo ngi andon nag soxna Karima mbacké gunge ñëw ci bis bi parce que ñun dañu yor daayira soxna Karima. ñu ànd ak moom ñëw jëmmal si bis bi amuñu ko dul soxna Karima nag ñun lu mu nekk suba ba sa ngoon rek ña ngi ci Mbàkke doy nañu doyloo nañ ko bi ñu àndeek moom ba léegi rëccuwul ci dara loo tax fu mu ñu woo rek ñu jóg fu mu ñu woo ñu jóg ñetti fan yi yëpp fu mu dem rek ñu ànd ak moom lépp rek ngir doon taalibeem doon bàyyi faalam fa seenee ànd ak moom nag ba rek kii daal ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal taxawaay bi yàlla na yàgg Mbàkke Balla yàlla na toog a toog ba dund ba dund sàppi ko daal ñun daal amuñu fayam ñu koy sant di ko gërëm wax dëgg yàlla am na yëg am na taalibe ñun ñëpp kenn ku mu si gis na jaar si turam benn yoon bu la xamee jeex na ku mu gis na jaar si turam jaar si santam loolu yëpp nag ak yëg la rek Mbàkke ñun nag amuñu dara mais ñu ngi si ginnaawam lu mu woote rek ñu ngi si waaw di sant tam ajaratu benn Gueye moom itam wax dëgg yàlla bi ñu àndee moom ba léegi moom tam réccu wuñ ko parce bu ñu ba jot soxna si rek ginnaaw yàlla yonent bi moom la moo nu boole soxna Karima te rëccuwul si dara moom tam lu xew mu di jóg leen man soxna si laa am mooy sama maay jaamam mooy sama sangam fu mu woote jóg leen su fi nekkul tam ñun lu nu mën nañ si def bu fi nekkee jiitañu tey ji nekku fi mais mel na ni mi ngi fi ndax ñun ñu fi nekk ñëpp jëmbal nan ko taxawu nan ko di ñaan daal ñu fekk ko ay déwén di déwén ñun amuñu lu dul fii amuñu ko dul Jurbel ak surtout kër Cheikh dëggal kër gu mag ndax fii la sëñ bi defoon fukki at ak juróom ba tey ñu koy màggal nii màggal gii day dem a dem ba mel ni màggalu Tuubaa ndax sëñ sëriñ bi li mu ñu defal fi daal ñun amuñu fayam moo tax màggal gi luñ ci def rek xeeb nañ ko suñu jëm suñu sunu ñëw lépp di leen ñaanal yéen ñëpp ñu fekk ko ay déwén comme ni ko ñëpp waxee rek di jaanal barka mi wax dëgg yàlla moom itam bi ñu ko xamee ba léegi réccuwul ko fu mu gis taxaw nañu ànd ak ñun ñëw leen def lii ñëw leen def lii ñu koy ñaanal na caméra bi yàlla na dem ba mu nekk ay télévision ay télé télé mu doon directeur télé ba ñëpp di ko tudd fi ñuy tudd Youssou Ndour di ko tudd Bougane di leen tudd ñoom ñëpp ñu ngi koy ñaanal ñoom yow mi tamit waaj ñu ngi ñaanal ndax yow tam sa taxawaay soxna si ñëpp ko rafetlu wax dëgg yàlla doon nga taalibe am nga yar am nga teggin ñun ñi ñëw si soxna si sax wax dëgg yàlla ñun ñëpp nga jox cër fun la gis daal macha allah nga doon sama rakk nag ñu bokk bàyyi waaw ñu ngi lay ñaanal yow itam bul rëccu bi yàlla boo rëccu dara loo doon ànd ak soxna si si daraje sëñ Touba ñu ngi ñaanal ñëpp di leen ñaanal jàmm jërë ngeen jëf waaw man maa ngi ñaan sant yàlla julli si yonent bi sant sant Mbenda Gueye yoonu sëñ Tuuba moom tànk kanam lañ ci am waaye amuñ ginnaaw nu naa nuyu daayira Maam di leen sant soxna Karima Mbàkke fu mu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggale waaw Mbène Gueye itam ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax bu ñu xamee soxna Karima Mbacke bay démbalanteeg moom yàlla ak moom a tax yàlla na lu bëgg ca kaw ca kanam rek sant nan bu baax gërëm nan góor a jàll nag moom dañ koy bàyyeeg yàlla ak maam borom Tuubaa nu daayira maam jaara ak waa Kër Mbène Gueye ñoo ngi sant Gora Diallo bu baax ndax fekk sagal ñu teral ñu yëg ñu. waaw kon nag moom yal na ca rek ku ko xaaru yal na nga xàddi salaam. baax waaw sëñ ñu ngi lay jaar bu wér. waaw doon euh, diggante ak soxna ci ak gunge bi ngeen ci màggal gi daal doon laaj euh, ay seede daal ci moom daal. Cheikh maanaam wax yombul waaye man ku mel ne man mënu maa waaye wax soxna si moom yomb na ndax soxna si moom dafa tàmbalee ci baax rek yem ci mbaax maanaam léppam baax la daanaka ko wax ne ko la doon bette ci waaye baax moom. rek mooy sa mooy sa wàll te def na ko xanaa di seere ne maanaam ak baaxam ak bëgg nitam ak ak ak bëgg liggéeyam ak maam maanaam daal nit ku mag la ku seq ak moom àdduna tamit xam nga loolu waaw maanaam nag damaa mënewut wax waaye daal xam naa eh, maa ngi seere ak mbaaxam ak njubam ak nangoo liggéeyam ak màggam maanaam nit ku mag la ñu ngi koy ñaanal maanaam mu barkeel ca am lépp daal maam am lépp lépp daal suñu borom defal ko ko wax nag moo yombul ca mënewu ma wax waaye daal ñu sant bu baax te it moom tuut mm, la rek ci ay mbiram waaye mbiram moom li mu kowe kanam la jëm te a kowe yàlla na suñu borom def ñu fekk lépp teg ci moom loxo ci defal ko jàmm ak xéewal barke Sëñ Tuubaa ci dimbaleen yéen ñi ñu ko te jàppale ko ndax ku jar a jàppale ndax bu amee njëriñ bu maam bu ñu ko jàppale suñu njëriñ la ndax saa bu amee lu baax ñun ñëpp ñu am lu baax te maanaam njëriñam pour doomu bindee fi bindee fi suñu borom waaye lu ngeen moom du boppam kon nag ñu koy ziar bu baax Mbàkke te sàkk su woon di ñaan te di ko ñaanal yàlla yàlla doon lii sëñ ak barke Mbacke ana sa pay Serigne nga ko ñu doon laaj maam ay seede ci moom sa diggante moom daal waaw jërëjëf Serigne ñoo lay siyaare bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu képp ku teew ci màggal gi rek ñoo ngi lay nuyu di rafetlu bu baax sa teewaay di wax ne soxna si rek wax dëgg yàlla yéeneem moom xam naa ne weesu na fii sax waaw yéeneem moom weesu na fii parce ku lay woo naan la kay liggéey daa ñu liggéeyal Serigne Touba kooku amoo fayam kooku moom wax dëgg yàlla ñun amuñu fayam te seetlu nañ ne saa yu ñu woowee tamit lépp lum ñuy wax moom mooy kaay ñu liggéeyal Serigne Touba kon kooku kenn amul fayam lu dul di ko ñaanal rek suñu borom may ko fan bu gudd ak ak wér ah, suñu borom defal ko lu kawe njortam parce que tànk yi mu taxawee nii suñu ko toppee wax dëgg yàlla euh, duñu am dara lu ñu metti parce que koo xam ne lim lay wooyee lépp si yàlla la si yàlla lay woo ak yonent bi du la woo leneen loo xamante ne bi du noonu ah, kon kooku lu baax la la yéene lu baax loolu nga xam ne moom la ñu yéene nag yàlla na suñu borom defee ñu am fan wu gudd ak ak wér ba ñëpp teewee lépp incha allah rabbi jërëjëf sëriñ jaarëjëf kitaabati